mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen internet yi fu ngeen mën a ne si àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina nag supporteru caatu yoof yi ah. tey moom lañ seqal war a seqal waxtaan fekk nañ ko studio xaw ma nag daa bëgg a boole bëre bi ak woy xaw ma maa ngi nuyu nag ñi mu àndal ñëpp hélas bu ama moom ama bal day mbërëm hélas waaye nag chaque jour mu ne ma sama boy bi caatu yoof di nuyu Pape Ngom moom tamit di ngomeen comme man ngomeen ni samay doom nijaay lañ maa ngi leen di nuyu Pape ah bëgg ceeb lañ nag ngomeen yëpp mais rawatina nag ngomeen yi nekk mbomboy ca bawal sama waa kër nijaay yëpp nuyu naa leen ziar leen caatu yof félicitation laa lay njëkk a wax ba pare. merci grand bi. may ragal tey saa <laughs> ma si dara ah. non noonu laa mel nag naturel quoi merci gars si félicitation mm-hmm. maa ngi lay nuyu xam nga di nuyu gars yi nga àndal bu baax xam nga di nuyu waa Yof baax a baax a baax. Mm-hmm. caatu Yof studio laa la fekk de da ngay waaj a génne cassette wala da ngaa dugg ci rap bi wala musique mbalax. non lii suñu benn grand bu baax rek xam moo ko moom xam nga euh, muy Moustapha Tall moo tax ñu ñëw defal et dañuy jàppale xam nga il faut ñu def si defee si studio xam nga mu gis si boppam quoi moo tax. loolu la ko mooy loolu. Caatu Yoff su ma doon laaj tey kan mooy Caatu Yoff tey pour nga wax senegal yi kan mooy Caatu Yoff. ah pour xam ma du yomb de parce que boo ma gisee su ma jëmm ni da nga may xeeb. foo dëkk. non Yoff laa dëkk. fi laa juddoo fi laa yoroo. lu sa métier. bëre. lu la dugal ci bëre korom roy ba dugg ci bëre. su may gënaa rek xam nga laa daan topp ba yàlla dugal ma si bëre quoi ñoom ñu bàyyi ma ma des si. Eh, xam nga ay vieux Ndiaye Pango mi sax xam nga ñu ma daan si la bokk. yaa eh, su may grand frère xam nga su mel ay Saliou Fall vieux Ndiaye ñoo tax ma am amooru bëre quoi. yéen eh, ñoom ñu bàyyi man ma continuer. ban année nga njëkk a bëre. man 2013 laa njëkk a bëre. combat arène. non non waaye sama dëkk Yoff. yee. non rek six six personnes boo daanee six combat da ngay am dem final wala demi final. daan bëre ba dem ba final sax paa xam nga bëggul woon bëre. Mm. xam ma dem mu ñaanal ma yàlla nga ñàkk ma dem ñàkk mais teewul xam ma bëgg bëre rek. waaye ba yàlla dimbali ma mujj ànd ak man mooy loolu. léegi bëri mbapat def nga ko si régions yi comme ni ko mbër di defee ci àll yeeg ci dëkku séréer yeeg yooyu. non laa mas dem bu mu ñëwee léegi ci lit affaire bi ban année nga ci njëkk nga ci njëkk dugg bëre. 2014 laa njëkk bëre. Euh, papa Balde kii Ama Balde la ñaata combat nga am arène. 13 euh, combats. 12 euh, victoires benn défaite. ku la daan. Eh, Franc moo ma daan. nga mën ngaa ñëw si ñi nga daana waaw ma daan Bébé Julle ah Pape Thiam ah ak ah, Boy Sey 2 ak ah, Sibel ak suñu yet ak Zambala ak ah, Gibson ak Thialma ak Max ak Dégol. ñun ñëpp nga daan. yooyu yëpp laa daan. macha mel ni palmarès bi ni nga ko limbe nii rafet na de. ah noonu la loolu yàlla lay def yàlla moom suturaal na ma si loolu ñaan la si des daax incha allah. léegi damay ñëw bala may dugg combat bi nga mujj a bëree bi nga mujj a bëree daaw laay dugg balaa Bébé Diouldé bi yàgg Pape Thiam yàgg Pape Thiam combat ba la ca xew ba recours am ca bañ na yaa daanu ci géew ba nga recours ba door a jot sa ndam lu lu xew kera noonu la problème arbitre da woon rek parce que xam nga vigilant yi arbitre yi moom mën nañoo gis lépp mais am na yàlla dimbali nañu ba CNG àtte yoon ñoom yoon yoon yoon moo la fi nekkal quoi dimbali ma ba joxama sama victoire mooy loolu. Eh, loolu am na solo léegi bu ñu ñëwee nag nga jóge fa def recours gagné komba bi Pape cam da ngeen mës a bëri mbapat. oui mës a bëri mbapat ku daanu moom daan. fan la woon. Grand Yoff ko saf la Grand mu daan mu ni moom it daanaanu bëreekat la de. waaw mbër la moom dëgg yàlla mbër la. nga jóge ci ak ndam ñu andil bi bi nga ci jógee ndam balaa bébé julde am na ñeneen ñu la doon wax wala. waa am na ñu ma doon wax ay général Malika mhm. xam nga ay njaay Téna kenn xamul parce que yàlla dimbali ma yàlla def ma bébé Diouldé ñoo war ñu bëre mhm. mooy loolu. nga ko jëlee amuloo woon ci benn xalaat. non non amu si woon benn xalaat loolu yàlla daan rek laa gisoon nekkaat suma yoon. daaw ñu la wax mu la ëpp doole moo la daa xeex daaw ko dégg. Eh, man mi sax xam jàppoon naa ne mu ma ëpp doole de dëgg yàlla. Eh. bi nga ñëwee ci biir làmb ji nga gis ko mu gis la nga sumee ko mu sumee ko loo gis. non liggéey na macha allah liggéey na moom dëgg yàlla moom su waxee yàlla tara liggéey na. Eh, trop sax macha allah. mais euh, tey su ma ñëwee ci biir combat bi bi arbitre soufflé ngeen jàkkaarloo loo xalaat. non yooyu yëpp maa ngi si moom laa nekk xam nga maa ngi xool lu mu war a defar boo gisee bi ñu taxawee xam nga maa ngi xool bu appelé gauche sama loxo mu ngi fa et damay annulé si ginnaaw bàyyi ko ñëwaat xam nga loolu yëpp sama xel mu ngi si combat bi. bu appelé gauche nga arrière. waaw lépp di xool combat bi yëpp man daal sama xel mu ngi woon si moom si bët mi ak loxo mi. maanaam loxo yi lu tax nga bàyyi ci xel dañ la ne xeexkat la wala. non nit ki boobu da moytu ay forum. yooyu moom droite am foo mooy forum quoi ah. day appel gos gos indi droite. waaye loolu mooy forum. Uh-huh. te bi ñu ñu liggéey si loolu quoi. léegi du duñ fa xaar su euh, droite bi ñëw balaa gauche bi gos bu appelé nañ arrière et puis du mën a indi droite quoi mm-hmm. maanaam daal kon mbër moom boo ko jëlee danga koy jàngat xool li mu mën nga moytu ko parce que mbër bu la yóbbu ci li mu mën des fois mën nga yomba ñàkk wala waaw loolu moom mën a bëri àggul foofu nit ki moom fooram bu la fekk ci da lay daan mm-hmm. léegi bi nga defee loolu tëj loolu ci moom kon boobu pexeem daa jeex ah moom xam naa loolu lay indi woon dóor dóor mu daanu parce que euh, maa ngay seetaan boxe lay jàng xam nga mais man ne man sama gars yi kii lii lii ne du ma ko si fekk si dama koy njuy indi beneen beneen beneen système quoi. bu ñu la séentoo fet nga fetal bu ñu la séentoo fetal fetal père Max sa ko daan wax de. waa noonu la demee nag. Eh. léegi bi ma ma gis loolu am ngeen daw daje ci kaw daje boobu ci kaw nga mel ni bi ngeen daje da nga fattu loxo bi pour bañ mu xeex ba tey. waaw boo gisee bi bi bi ñu jàppante dama daw dem côté bële pour loxom bële du mën a am élan pour dóor quoi. ma dem taxawee boobu léegi mu dóor mu dal fi boobu dalul sax xam nga si laa wàcc jàppaat jàpp ngembali xam nga mu dóor épercule mm-hmm. ah bi muy delloo ma tël loxo bi bëgg kaa xam nga tegal seen mu may ma zongole ko dóor ko tànk jël bi nga ko daan àddina yëpp wala ñuy seetaan làmb ñëpp ne dafa rëy jël bi nu mu tudd ak action bi dëgg dëgg action bi lan la non loolu sama foor la nag parce que mën naa si def trois actions yu bokkul moom su rëccoon si boobu beneen mu ngi ñëwaat. Eh, maa ngi dem indiwaat beneen. Eh, loolu la. action bi nu mu tudd. <laughs> boobu sama action boobu la. daa ma tuddee la que léegi action Babacar bi laa koy tuddee sax. kon de tudde nga ma lu rëy na action bu rëy na de. bilaay te dinaa si daraan yeneen yeneen nit. pour nga xam ne loolu dafa rëy incha allah. moom Bébé Diouldé loo koy wax. waaw nit ku baax la nag. parce que démb woo na ma téléphone. ba dëgg yàlla moom xam dama ruus sax barke Seydina Mohamed moo seexu yàlla yi. Eh, Birisa xam nga Boy Thiaw. Eh, maa ngi leen nuyu bu baax. mbër maa ngi koy masawu coono xam nga làmb dafa metti xam nga yàlla mayat combat bu baax xam nga bu dul yoof xam nga yàlla may ko si ndam ndam lu seddoo gi. mel tamit dama seetlu waa yoof xaw nañu sonal bool bool yi de daaw Kewel Modou Dia ren pare eh, wulli Bébé Julde mook xale ba nu mu tudd fils de Zallo ñu bokk écrit caatu yof daan ko yow it nga ñëwaat daanat bébé julde lu maanaam da da ngeen leen a nenn wala. non liggéey na rek ax mën a bëre ñun yàlla dimbal nañu mën nañoo bëre te bi liggéey am na ngëm-ngëm boo xamante ne ku ñu ku ñu war a bëre la lay daan loolu yàlla def na ko si ñun loolu la ñu rek te puis yàlla day xam nga mënuñoo quoi mais yàlla day ànd ak rek lépp lu ñu def rek xam nga yàlla ànd ak ñun moo tax ñu leen di daal mais mooy. daaw jël permis ci yi kon yéen ren loolu ngeen fas yéenewaat. loolu doon bëggaat de te ñu ngi si tànk yooyu ñu instant ñu ngi say victoire bu baax bu nga continuer incha allah dinañ jël pay incha daan nga Bébé Diouldé léegi ku des. mbër yu baax yi rek. comme ñam yee eh, génn kër a ngi fi. Mourane tànk les deux a fi. double moteur a ngi fi. yow mii booy Moodu Anta nga ma wax. Diène Kairé double moteur ak les deux ñii nga teg sa bëri yow ñii est-ce que mën nga ci ñoom lu bëri tamit nag caat caat. kon de su ma mënul si ñoom bëri mën naa teela a bàyyi bëri xam ne du ma jël roi des su ma mënul daan ñooñu mën naa bàyyi. Diène Kaïré yow mii yow xalaat nga nga koo a daan. du su ma mënul daan Diène Kaïré ay moorante yooyu mën naa teel a bàyyi uti lu ma liggéey xam ne mënumaa doon roi des arènes. Double Moteur moom luy seen problème. na kooku ragal la xam ay mbokkam ñoo ragal xam moom moo ragal. Double Moteur nii du na ko ragal yow tamit kooku dëkk rëbës. bilaay ñëwewul sama avance. dañ ko ko a jox. waaye avant may bëree moom laa waroon bëreel. nga muy daw di wiiri naan bëre ma yow kenn xamul. est-ce que jàppul na da laa raw. bu dee jàpp mu mu ngi nax boppam de. raw la. nu ma rawee. yow loo jàpp yow. Bébé Diouldé maa ko maa gën a bàppam rek maa ko ëpp victoire mu ne newul si duuru ma tam newul si dix combats xaw ma te man maa ngi treize combats moom mu si ñaari défaite xaw ma te man maa ngi si benn victoire su ma ko su ma ko bañ la war na maa bañ. est ce que du benn defet la mais ko daan. maam Balla ma non néewal si ñaari defet ñaari defet la tegle am na ñaari defet waaw. mais yow lu tax nga ne ragal la da koo ma a napp wala danga ngeen mos a daje ci ruq. noonu ma xam ne max bu neex la xam nga tey bii combat bu neex la gars yi dañ ko a ñaari mbir d'accord suñu bëre. Modou Anta moom la faral di wax gars yi moom ah, weex na xàtt de. moom billaay wallaay su ma amoon lu ma gën a moom laay bëreel sax kooku kooku nga xam dafa weex noonu. Hmm. pour mën a wane sama bopp. talent yi nekk si man il faut ma génne ko. te ci ñi nga ko fas yéenee génn. waaw si grand frère laa ko bëgg a génne mooy loolu. Hmm. sa digganteeg Pape Thiam mu ne su ko defaat wala. non saa yi mënatul nekk. Hmm. Pape Thiam bokkutuñu yoon saa yi ñu toll nii de. ah xoolal rek yoo xam nga ne sax maa xam bokkutuñu yoon. <laughs> mais euh, less de tamit ndax loolu. yow loo xalaat maa ko mën nga xalaat quoi. man les deux yow <laughs> les deux moom nga xam ne xeex rek lay def ñuy profité di ko jaale way juróom bu góor dafa génn àddina fan yële paas yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko nuyu di nuyu caatu daaw parce que yaakaar naa ne ñoo bokk way waaw ma maa ngi leen di seen seen seen papa ñëpp xam nga yàlla na yàlla yërëm xare ko aljana yéen yëgu ma loolu sax mooy loolu. mais bu loolu passé ma xam moom suñu combat dafa war a neex. Less 2 moom ku ne xam na ne mbër yi dàq xeex ci Sénégal ci la bokk. ah affaire du xeex affaire bopp la rek tegante xel la rek. Diène Kaïré moom doomi mbër la. moo moo tax bu du woon doomu mbër kenn kenn ko dégg. non daal liggéey. ñaar defet la am Diène euh, Kaïré ñaar victoire la am waaw. ñaar déet man kay xawma li mu am. douze combats la am trois défaites neuf victoires. waaw ah, benn match nul waaw. yow loolu tax nga yaakaar sa morom. man su ma doon doomu mbër. instant yii maa ngi taxaw plateau roi des arènes mais yàlla def na du hmm. doomu mbër. mais mais mais est ce nekk doomu mbër kese doy na est ce que du yaay liggéey lii tax nga nekk mbër. am naa ngëm-ngëm bi. xam nga tey boo nekkee doomu mbër. tey am na benn booy bu fëloon fa de xam nga naan jërbaatu Modou xaw ma ñaari combat la doomu Modou Lo wala. xamu joom xamu jërëwaatam daal. doomu magam de xam naa ko Petit Lo. waaw ah, kay booy nga gars taal te bi ñaari combat la am. Hmm. affaire famille da ciy joué de hmm. waaw. <laughs> da ciy joué mais moom it moom kooku itam talent la de yaakaar naa. man de nit gën a maa baax talent. Hmm. yàlla def na loolu. yéen waa Yoff da di bëri waa parcelle. waaw waaw. Franc parcelle la dëkk moomu daan. daan na la te parcelle. kon xalaat nga dellu parcelle. ma ma amee si mbëri mag yi naa si jël. comme ñan. ay garga mboos yooyu moom bëgg naa bëri ñoom. Ah, caat li ngay laax gi bëgg a dis de garga. bilaay walaay taalaay mbër yu mag yi saa yi mënatumaa bëre booy parce que liggéey naa prouvé naa def naa li ma war a def xam ma yéeg si kaw bëre si kaw mooy loolu. ba nga daanee ba tey contacté la fi pour benn combat may ñu may woo nag pour wax combat quoi. indiwuñu benn tur. non non yow daal ñi nga lim sànq ñoo ne ci sa xel. man daal bàyyi dama sonn si booy te ñi ma féete kaw laa bëgg a bëreel. Eh. làmb ci dàq bëri. làmb ji ah Balla Gaye si mag ñi moo si dàq bëri mais man sumay maa si dàq bëri. ci mag ah, loolu la yàlla def ñu mënuñu si dara de. caat yow mii. bari sëñ Ba nga wax nii est-ce que waa Fass waa Pikine waa Guédiawaye est-ce que nañ ko nangu. Ah, ah, waa ah waa Bawol ñoom buñ bu bu buñ xamee ne yàlla mooy mooy maye dinañ ko nangul ay talent am wax la génération yow ne nga moo dàq bëri ci mag ñi gune yaa ci dàq bëri yaa ak moom ku dàq bëri balage Gaye ah, ah. <laughs> maa moom du yomb de <laughs> ñaar ku dàq bëri maa moom du yomb nuyu sax moom grand bu baax la bu dëgg yàlla damay day day seede si man lu rafet maa ngi nuyu bu baax xam nga mooy loolu léegi loo loo bëgg ndax te fàtte ko. waaw di santaat yàlla rek julliwaat si yonent bi santaat sumay ñaari waajur bu baax a baax di nuyu samay mbokk bu baax xam nga nuyu samay mbokk yi nekk ndar yépp xam nga mboora xam nga waa kees samay waa kër yaay waa kees xam nga tuuba xam nga ngor wakaam yoof xam nga seen fay xam nga gis naa ñi si taxawoo ñëpp ndurkat yëpp xam nga ñoom Zakaria xam nga xulaar taaro gis naa ni nañ si taxawee bu baax a baax a baax di gërëm nag su may gars yi ñi si jàpp bu baax sunu monsieur le maire euh, Abdoulaye Diop Sarr jàpp na si combat bu baax ama may nañu xaalis bu bari pour ñu waaj pour daan Bébé Diouldé yàlla def na ko biram ñi nga xam gërëm gars yi ay pamgom xama hélas bu ama ibnu xama asantaw ak suma maire yi maire yi may toggal suma maire yi xama ak gars yi may àndal ak ñëpp ñu may àndal quoi ñu may àndal non boobu dara dew si waaw ñi may àndal booy xam nga sama booy fan si bi xam nga sunu président bi muy Mor xam nga di sama gars yi may àndal la ñi may toogal xam nga su ma naay papa asan Samba xam nga Assane sama gars yi daal képp ku ne sama ginnaaw rek xam nga maa ngi lay déggee quoi di la ziar mooy loolu yaa ma gën a xam ah, léegi fi léegi dañuy jeexal carrément mais loolu sax xam naa ñëw na en retard dañ ma ko di nañ kere li nga sotti ko bëri bi ngay bëri waaw ànd ànd samay mbokk rek ñëpp ñaanal ma di gërëm nag suma sunu suñu taaw kër Ablaye Gueye di gërëm Ablaye Ndiaye Mbora xam nga ñoom xulaar di gërëm nag fi ñu toog nii muy Moustapha Tall kooku moom dëgg yàlla jàpp na si combat bu baax jàpp na si en mille mille mille fois mooy loolu lépp lu soxla rek buñ ko woowee xam nga mu jàpp si ñu ngi koy ñaanal li mu li mu li mu bëgg moo xam yàlla na yàlla defal di gërëm na suñu tête de film muy Malick Niang keroog bokkuñu écurie de hmm. mais yàlla xam na ne dafa ni xoolal bañu si dara bu ba bu yóbboo sa gars yi aj ka hmm. mais dina wàcc xam nga surtout dooleel ma mooy lool di ñaanal mojj yàlla na may ndam xam nga loo bu yoof yàlla na yàlla may ndam petit l'enfant yàlla yàlla may ndam amaa bu yoof yàlla na yàlla may ndam. petit l'enfant mooy bëre samedi. Eh, moo far bu jar. moo far bu jar eh, ñaamul ay gin. yal na ko yàlla may combat ñu amagul combat yal na la yàlla may combat ñu jàmmalaay xama sama gaa yi mot ba Moussa xama bàyyi ma kenn daal sama. sa moroom mbër yi ci làmb ji wala làmb ji en général mbër yi ak supporters yeeg ñëpp ban ban message nga leen di lancer pour ñu gën a taxaw laam ah man de maa ngi taxaw làmb parce que keroog boo gisee suba liu bébé julle yi ñu ma toog ba xam di ma wis mais faale ma leen sax maa ngi conscient sama bopp yooyu bu buy am rek problème du am si làmb ji parce que mbëri laa waaw la plupart dañuy bàyyi xelaay ay misiga kenn kooku war naa tourné xam nga wax ak moom wala ma dóor ko coow am làmba ji yaaxu mais bàyyi ma nga xel sax maa ngi nekk suma bopp mbëri bu ñuy def loolu moom bàyyi coow du am di leen wax làmbal foo rek benn 10 minutes la wala quinze minutes xam nga nga pare ku ne dem waa nekkaat si leneen waaw ñu rafetal ko dañu sàmm parce que ñun si lañ war a si lañ war a jëriñu quoi. kontaan ci yow. merci maa la gën a kontaan.